pour ñu ñuy suivre euh, ci li nga xam te mooy si li nga xam te ñoo nekk tey tey ñu ngi fi nga mooy ci arène nationale di leen présenter combat te ni am solo di combat spécial ci diggante euh, ki nga xam te mooy euh, Ndiaga Thiam di caatu Boston ak Kara Dollé waaye bi ma taxawal mooy combat spécial bi diggante Baye Ndiaga bàyyi ko yëmbal mbooloo ak ki nga xam mooy 10 problème nekk foofee ci écurie Ramdan muy combat bu nga xam te ne bii ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaar di ko waaj di ci ànd ak Euh, structure bi nga xam ne mooy Bamba Milano Milano production muy suñu faral bu nga xam te mi ngi foofee ca Italie di fa liggéey lu am solo tey nag bu jëlee koomam dugal ko ci biir làmb tamit dañuy amaat mbégte kontaan ndax képp ku taxaw làmb wala képp ku dugal sa loxo ci biir làmb rek dañuy am mbégte li nga xam te mooy ci li nga def combat la bu nga xam te mi nag ah coow lu bëri woon na de waaye nag mujj naa taxaw diggante Baye Ndiaga jóge ci diggante ak Boy Jobaas waaye ki nga xam te bi mooy euh, dimi problème jóge tamit euh, ci digganteem ak ki nga xam ne mooy Noiro bu duudu Bakar Sarr dama leen bàyyi ñu nuyu su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. Euh, Baye Ndiaga wala 10 000 ki kan laa njëkkee kuy Ndiaga wax 10 000 ziar naa la. waaw ñu ngi lay bëggee bu wér di leen ziar euh, di wax auzu billaahi mina sheytaani rajiim auzu billaahi mina maa ngi nuyu waa àdduna di nuyu waa pikin di nuyu waa yeew euh, di jël ci nuyoo bi di ko teg ci loxo Kébé suñu président yeew di bëggee waa pikin yëpp di ziar bu baax a baax di nuyu waa Canaba Seck. di nuyu sama xalifa baay As di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram waa di nuyu sama adversaire di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér ba tuuru combat ba incha allahu rabbi ñu jëflante yàlla may ma ndam ci kawam. turam dëgg-dëgg nan la. turu kan. turu ki ngay bëri dëgg-dëgg. nii may waxee ak yow nii sax turam xawuma ko. wallaahi jëru ko. waaw ah. maa lay siyaar. waaw Thierno ñu ngi lay delloo siyaar di wax ne auzu billaahi na seytaani rajiim ginnaaw ba ñu sant yàlla dina jiliwaat si yéen bi sant suñuy ñaari waajur di santaa sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy di ko di ñaan yàlla yal yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem di nuyu sunu sëriñ sëriñ Mouhamadul Moustapha si yal na yàlla bàyyi ko suñu kanam yokk taxawaayam di nuyu waa Yëmbal di nuyu waa Boune waa Benn Baraak waa Malika waa Kër Massar di nuyu waa Parcelles xam nga di nuyu ñëpp rek di wax ni maa ngi wax ni Bamba di ko bu baax a baax. borom euh, Italie Bamba Milano waaw Bamba Milano ñu ngi lay nuyu di a ah, nga jël sa alal. Mm-hmm. dem liggéey ñaq ñëw dina nga investi waa sa biir réew. Mm-hmm. nga nga ni làmb laa xalaat def ko si. waa ñu koy ñaanal yàlla suñu borom moom mu xam moom mu am xalaat boobu ba def loolu. ñu koy ñaan yàlla suñu borom may ko mu réussir si kàttanu yàlla. yàlla bu mu suur yàlla bu mu ko rëccu daal. Mm-hmm. waaw di nuyu sama adversaire. waaw waaw maa ngi lay bu baax di la ñaanal jàmm. turam dëgg-dëgg nan la. non xaw ma turam nag. dix mille daal laa xam waaw ah. waaw. est-ce xam nga ne euh, tur bi ñu koy dàkkante la dix problème daa bëri ay problème. Thier. sa waay ah. du dix. du dix. du dix. du problème. Ah. non hmm. mag la mag la. Mhm. yaa ko dégg man du ma si wax sax. damaa yaakaar ne dafa sangoo saafara si jàmbur rek. Eh, ndaxte kii suñ taxew mu tax non waaw dafa laal lu mu dalaal suñ taxew mu naan mag la kii bi muy bëree man bëreeguma ci làmb. Hmm. barke alxuraan boobu maa ngi maa ngi cana ba di bay. Hmm. barke alxuraanu karim kii su taxawee ni man mag laa. daa sangoo saafara si jàmbur. waaye dina xam ni si combat bi dina xam ne yoonam néew ci. Hmm. bay boo mu entraîné bu baax ta xam ne ki muy bëreel wérul de man wéruma de. Ah, problème bi de xaw ma ba xam mi ngi fi ba léegi. barke alxuraanu karim du ma nit. te billaahi su bëggee combat bi dama bëgg mu nekk combat gladiateur gis nga sawaay xool ma fi wane bëtu ragal nii barke alxuraan dinaa la jéem a dóor le premier ba le 17. Eh? barke Seexu Canaba. le premier ba le 17 non billaahi non taxaw rek non nank rek nank billaahi soo amee fit te dëggal sa bopp dinaa la duma ba ñëpp xam ne duma naa la. man ngay barke alxuraan xama nga yow mëngal bu rate nga. Eh? yaa ngi comprendre. barke alxuraan billahi wallahi wa taala eh. dinaa la duma duma yoo xamante ne non non on rek booy yéen kuul leen rek eh. billaay kii yaa gis nga kii wuy ma Thier Thier nga micro yi tiim la ngay wax dafa neex ah. micro yi tiim la ngay wax di ratatati dafa neex eh. mais déggoo ma wax kii du diis du mil du problème màgget la déggoo ma xanaa du 10 du 1000 du problème màggat ga eh bu ma la jàppee dama lay dóor ba ma nga tëdd billaahi waxoo dëgg yow juru combat ba ku soxla say bagage na tax mais xam lu ma jaaxal xam lu ma jaaxal koo xam non non si gis nga yow da boy grand frère dama bëgg nga réglé dama bëgg nga réglé non non non bala ngaa jekki nag xola balaa làmb ji dama lay jàpp fekk la seen biir kër foo nekk ma fekk la fa di la ba koroog làmb ja maa la gën a tarit maa la ëpp fit yow ragal nga. Eh, yow du nit. yow ragal nga yow yow micro yi tiim na nga ngay wax ak man. 11 combats ba fële. mais la ma tax nga bi xaw a a taxaw. barke Nabil Moustapha lamb ji dafa bëri ay tapet. Ah. xam nga bu njëkk na laa daan def combat bu ñëw mën leen jël leen. barke alxuraanu karim parce que amatuma maam dama dem ba man. maam taamu leen daal taamu wu ma. te Baye Ndiaga mi damaa jàpp ni moom maam daam lu ko dal quoi. dama lay laaj est ce que xam nga yaa ngi bëri ndaanaan ndax bi nga koy jël waxtaan nga ak say xaw ma man kii. waaw përiwuma pour xam ndaanaanam. day xeex day bëre. Eh, barke alxuraan juru combat su loxo bi jugee dinaa ko dóor dóor yoo xamante ne. Eh. dinaa la duma duma yoo xam ne di nga jàpp bëriwuma ak moom sax nga xeex moom barke seexu ca na ba su bëggee ñu teg suñu radica du ma xeex ak moom du ma bëree dóor ba say mbokk for la ci la sax yow li mu wax ni man gëm naa ni gëmu ko gëmu ko non xaw a gëmu ko. day bataay la. day bataay yow man ngay waxal Baye Ndiaga laajal lamb yow Thierre yaa ma gën a xam. yow xam nga ne man lu ma ñàkk xeex ma ko ñàkkloo. yow dëgg la wala. comme yow waaw comme boo taxawee nga da ngay xeexal moom loolu wax la neex la say mbokk du la xeexloo ak man. Hmm. dëgg la ma yow soog moo la dugal si man mais ni nga xam ne xaalisu lamb sa yoon nekku si. bu ma la jàppee ba bàyyi la oh. danga non dafa fekk koo xamante ni yëmbal ñëpp ñoo koy xaar bàyyi maanaam yëmbal damay damay amel bor ay bor yu bëri ay bor yu bëri waaw gis nga kii su ko man yow tamit waa Ramadan tamit la xaar déedéet ah, ngeen jógee ci combat bu nga xam tamit neexul ci avant Ramadan xoolal avant Ramadan laa wax ñun danoo am équipe bu bees boo xamante ne ñu jël président bu bees muy xale bu bees nekk si sama man si sama wet barke alxuraanu karim chaque jour xam nga lu may wax. yow léegi moom chargeur nga ku am combat nga dem ku am kañ ngay am combat bi combat ma ak sa bànja nga taxawee. waaw gars yi danoo mel ne ku dof. te barke alxuraanu karim yi billaahi wallaahi wa taalaahi bis boo dof dof loo ba taxaw di dóoranteeg man. mais arbitre ne prip gën sa diggante moom dama koy duma. da nga koy duma barke Nabil Moustapha bëri wu ma ak yow. prip gën seen diggante eh, yéen ni dama lay mbalak wala dama lay onze duma si. yow ragal nga. tapper nga. ci combat bi nga yow eh, tapper nga eh sa làmmiñ a réy yow tapper nga xam nga li nga doo ko def. amoo fit boobu. amoo fit jàkkaarloo man di jiite ngaas ak man. doo am fit boobu. kii di wax nii rek mais arbitre sa diggante lamb dañuy bëre di dóor. waaw dinaa bëre dinaa xeex. waaw waxi tàppale yaa ngi ko waaw. man dama lay dund bëre dinaa xeex incha allah. mais moom na bëre siwul day xeex ak yow. man. ceer ceer ceer ceer ceer ma wax ju bëri jar ko nga ceer. kii amul firu diis ak ngaat ak man amul fit boobu dañu wax ne dëgg yow Thier xam nga moom ñi ñi seetaan ñi may déglu xam nañ ni kii amul firu taxaw man di di benn benn ak man amul oh. fit boobu amoo fit bi la wax la wala nee na da nga yoor wa wax la leen Baye Ndiaga Baye Ndiaga Baye Ndiaga Baye Ndiaga demal nga jàng ji xeex man li ma gis nga di ko xeex wallaahi damaa ñëw ngir kutu si kutu si la ah koy bàyyi xel ko dama seetaan naa combat ah. billaahi dama koy kutu si luy fooram xaw non ay foora ma yooyu deuxième moom moom la concerné mais man sama foor laa wax. day xeex. barke billaahi wallaahi wa taalaahi barke alxuraanu karim li muy xeex moom li muy xeex. bis bu ko xeex man dinaa ko duma ba mu tëddal boppam barke alxuraanu karim la ak nangam sax sama xol bi dafa frigo. Ah. barke alxuraanu karim bis boo yëkkatee sa loxo di xeex ak man dootoo ko dolli. bu ko defaatee yaa ngi koy suivre yow. man ko suivre. waaw moog Pape Robo. Pape Robo ba muy wóor na ma Pape Robo Pape Robo du ko daan. loolu la muy pap ba muy daan ba muy wër ma Pape Robot di ko daan boobu laa seetaan te maa ngi woon esaat maa ngi woon di ko seetaan. di ko seetaan du revanche. Ah. même yëmbal bi la rek. non même yëmbal bi la. mais man ak moom. Hmm. moom dafa juum. Hmm. waru woon dugg si man non non dafa juum say mbokk xam naa ne say mbokk waxuñu non say mbokk waxtaan ak say mbokk fay ma xaalis nga juum dangaa juum yow xaalis sama de mais du ay affaire de ay palmarès yu kenn de ay defen nga tegle pour muy leer barke alxuraanu karim te day yokk bala nga ko da ngaa dof sax nag. kama ma yokk dafa yow xaalis moo la boole ak moom. kan moo tax ñu jël combat ma boole ak moom. kii. waaw ndax maa ngi dégg mu naan palmarès. maa ngi ma la maa la maa ma bëreel xaaj ma mënoo bëreel ñoom. mais au ba vrai euh, tey lu ñuy xaar ci moom ndax Baye Ndiaga dafa bokkoon ci biir làmb. mais ñu gis euh, combat yi passé mooy loolu. sa combat bi noo ko fas yéene waajee. dama koy waaj comme ni ma daan waajee yeneen combat dama daan waaj ma daan waaj mais dina uute nag. dina uute parce que yëmbal yëpp ak toog dama xaar. Uh-huh. waa Farba. waa Cosaan. Uh-huh. waa Xandaalu. Uh-huh. waa Jàmmire waa Afrika. waa Naataange. ñu ngi may xaar. ak ak ak beneen facette bu bees. lépp ñu ñu taxaw di ma xaar incha sama retour. kan. kii man dama la kii du mille. du mille du problème. Hmm. eh. yow doo diis doo mil doo problème yow mag nga sopp moo la dugal si man xaalisu moo sopp moo la dugal si man mais xaalisu làmb sa yoon nekku si suñ taxaw ma man mag laa moom kon xanaa moom lu mu doon. est-ce que moo tax mu ne doo nekk nit. barke alxuraanu karim baa njaga eh. yow da ngaa baax rek. barki Seydouna Mohamed. taayoo barki alxuraanul karim 93 ans ah, kee sama mag la. balaa na nga yow 86. man xam man mi moom wax dëgg fa yàlla xoolal saa mbalag nag barke alxuraan ba nii may waxee xaw ma sama yat. loolu mooy lan yow Ramdan. bilaa wala juddoo gu ma bàyyi. barke alxuraanu karim billaahi wallaahi wa taala eh, léegi moom noo koy waaje ah noo koy waaje combat bi kii ni ma koy waaje c'est simple damay ànd ak Talla Gueye naar ñang yaa ngi comprendre ay ñoom Khalifa Tall yaa ngi comprendre booy ca na bay laa yim de ay ñoom abu naar ak yenn gars yi business yi ñëw tege barke Nabil Moustapha na entraîné ta xam ne am na combat de Fall maa la mag fop loolu nga wax dama koy nangu mais toujours combat ba suñu dajee di nga xam ne daje woog mag de lu leer laa lay wax barke alxuraan maa la man maa la bu doole. woote leen Baye Ndiaga looy woote Baye Ndiaga looy woote ñu dégg. li may woote mooy damay woo waa yëmbal rek. di santaat yàlla bu baax di jëliwaat si yeneen bi di santaat suma ay ñaari waajur. du nuy waa di leen woo si leen seen doom seen jarbaat seen xarit. am na combat ñu ngi leen woo si combat bi ñoom ñëpp ñu ñëw jàppale ñu parce que man aw ma lu dul yëmbal. man ma am yëmbal laa ko yóbbu ma ñàkk yëmbal laa ñibbisi kon maa leen di woo di leen wax ni leen seen xarit seen doom ndey seen rakk seen mag seen jarbaat am na komba ñi mën a ñaan maa leen di sàkku ñu ñaanal ma ñu mën a ñëw jàppale si mobilisation bi. dégg bi mooy combat ak jeexal. combat bi nii. noo loolu yow wax nga ko sax dama si tontu. ak jeexal non wax nga ko dama si tontu. ba xam ne combat bi. waaw moo may dugg si làmb moo may génn si làmb. Mm. incha allah si kàttanu Seydou naa Mouhamed. loolu promoteur Bamba bi la. koy ñaanal rek. Bamba xale bu ndaw la ba xam ne Bamba xale la. non ku la macha allah Bamba xale la Bamba macha allah Bamba. Bamba Bamba ñu ngi lay ñaanal. Uh-huh. ñu ngi lay ñaanal yaa xam li tax nga dugg si làmb nga investi sa xaalis ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom mel na si lu kawe sa njot uh-huh. te incha allahu rabi man boog. Uh-huh. incha allahu rabi non.